ak sunu baay yi nga xam ni liggéey bi seen loxo la liggéey bi seen loxo la des ki ci jiitu di sëñ Muniru ki ci jiitu sëriñ Maniru ñu koy ñaanal yàlla ñu koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yàlla guddal fanam te yàggal taxawaayam di yaar suñu baay sëñ Abdou Salaam di yaar suñu baay sëñ Abdou Salaam ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla yàlla guddal fanam yàlla guddal fanam léegi la fi jóge léegi la fi jóge wàcc ci sëñ Ahmad Cissé wàcc ci sëñ Ahmad mi nga xam ni mi nga xam ni sëñ Moustapha Ndiéguène sëñ Moustapha Ndiéguène keroog bi muy dem keroog bi muy dem njaboot gi njaboot gi ci loxoom la leen ci loxoom la leen teg mu ànd ak ñoom ànd bu rafet mu ànd ak ñoom ànd bu rafet ba jëmmi yàllay tey ba jëmmi yàllay tey dara musu fee ñaaw dara musu fee ñaaw ànd ak imaam Alaaji Ahmad Baro ànd ak imaam Alaaji Ahmad Baro ak seen rakk yëpp ñu ngi ñaan yàlla bis bii lépp luñ fi ñaan lépp luñ fi ñaan boobu ba tey ñu ngi jàngi kaamil ñu ngi def ay dog ñu ngi def ay dog ñu ngi dem ci ay dëkk ñu ngi ànd ak jaami ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def ay dog lépp rek ngir bis bi yàlla jagal ko fa tabaarakallaahu ku gis tey ni bis bi mel ci waxtu wii di nga xam ni ñaan yuñ ci doon ñaan yàlla nangu na ko yàlla na yàlla dëgëral taxawaay yi sëriyaas ñi ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla jàppale ndax mu jéewoo puso bi mu réer ndax sunu wayjur bi mu fi jógeeg léegi léegi yàgg na waaye yàggul waaye taxawaay bi mu fi bawoon lu fi bàyyi woon rek ful nga ko ci sa taxawaay ci sa yitte ak sa bëgg ak sa pasteef ak sa yaakaar sa kilifa ngir mu bañ a am gàcce kon nag njëgeen ñu ngi lay sant ci turu ñi nga xam ni ñun ñu ko bokkal ñëpp. ndax lii nga yor bu sooxe woon ñun ñëpp ko bokk bu doxee ñun ñëpp ko bokk rawatina baay yi nga xam ni ñoo ànd ak sunu baay ñu jóge fi ñu jóge fi sunu baay jóge fi ñoom ñëpp ñu àndaat wër la taxaw ci sa wet Baye Mody Diène bu ma ko tuddee ak ñoom Baye Souleymane ak dut jéen ak sunu baay yi ci des ak sunu baay yi ci des ñoom ñëpp ñi jiitu ñi jiitu yal na yàlla yeesal seen yërmande waaye fa tabaarakallaw seenu njaboot ñëw nañu ci sawet ci sa wet jàppale la ñi bàyyi daan jàppale seen Moustapha loolee bu buñ koy seere suñu kanamu kilifa suñu bàyyi imam Babacar Ndiour nga xam ni sunu kilifa la sunu baay la maamam la woon ak sunu maam baayam la woon ak sunu maam jëmmam la moom ak sëriñ Moustapha Ndiéguène néew na gàmmu gii ñu def ko te ñëwul ci wetu magam néew na gàmmu gi bi magam dëddoog léegi te ñëwul yiir njaboot gi ñaanal leen wax lu baax delluwaat ci téye kon kañ njuur kon nag njuur ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ziyaara di kontaan bu baax di ànd ak sunu mag yu baax di ànd ak sunu mag yu baax nga xam ni ñoom nga xamante ni ñoom li sëñ as wax li sëñ as wax doy na sëkk doy na sëkk yoon yoon boo ca amee mag boo ca amee mag am ca rak am ca rak am ca boo sonnee rek ci yow la ndax looy santaane say rakk a ngi taxaw lu la jaaxal say mag a ngi taxaw waaye ay magam a ngi ay kilifaam a ngi ànd ak moom seetaanuñ ko ci dara ba yàlla jagal yëf yi nga xam bi bis bii lu ma ci wut lu ma ci lu dul yàlla yàlla ma yàlla xañ lépp yàlla rek laa ci wut njëgën jëmmaa mu ne sama maam Mat Baro mu ne maam Alaaji Ahmat Baro yenn ba mu yenn woon di daw moom bañ mu laal suuf bañ mu laal suuf di ko daw di suuf suuf mu jox Alaaji Ahmat Njege muy muy daw ba suuf ba laalul suuf moom laa yenn di daw moom bañ mu laal suuf mooy lan mooy lan màggal yéen yokku nit ñi yokku nit ñi seen cofeel seen cofeel ci yonent royloo nit ñi royloo nit ñi yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad royloo nit ñi royloo nit ñi Cheikhuna Tidiane Cheikhuna Tidiane royloo nit ñi royloo nit ñi Alaaji Ahmad Ba Alaaji Ahmad Ba man Moustapha man Moustapha bis bu ma noppee bis bu ma noppee di def lii di def lii yàlla na ma fi yàlla jëlee moo tax yàlla nañu ko yàlla fayal moo tax yàlla nañu yàlla fayal dalil kóor benn bis benn bis mas nay waxtaan ci Cheikhou Tidiane mas nay waxtaan ci Cheikhou Tidiane ma koy jottali ma koy jottali di ko jottali ba mu yàgg ba mu yàgg ma daanu leer ma daanu leer ni ko xalifa Cheikhou Tidiane nga mu ni teg ñu dugg ci néeg bi ñu dugg ci néeg bi mu poñe ma mu poñe ma ma bu ma ko waxati bu ma ko waxati kat man taalibe la man taalibe la Cheikh rek la Cheikh rek la moo tax sëriñ bi moo tax sëriñ bi wallaahi wallaahi xam ko yomb xam sëriñ bi yombul sama waa ji day wax bis bu nekk nee na waayam ji sëriñ bi day wax bis bu nekk mu ne suñ Pape Moustapha Njëge ni suñu bàyyi Moustapha Njëge kéem tànnam kéem tànnam yii mu def yii mu def waxtaane ko waxtaane ko du dara du dara lii kéemtaan lii kéemtaan bi ni mu dundee ni mu dundee ba am cër ba am cër ba àgg fi mu àgg ba àgg fi mu àgg ba àddina yëpp ba àddina sëpp teg ci bët teg ci bët xam ni borom cër xam ni borom cër loolooy kéemtaan loolooy kéemtaanu Serigne Moustapha moo tax daan naa ko wax gaa ñi léegi moo tax daan naa gaa yi léeg-léeg di leen wax ni ma ne waxtaane miraakulu alxaaji Mouhamed Njëgët waxtaane miraakulu maam alaaji Ahmed Njëgët amul solo amul solo xam nga lu tax xam nga lu tax alaaji Ahmed Njëgët alaaji Ahmed Njëgët c'est lui le miracle c'est lui le miracle moom mooy miracle moom mooy miracle bu mag. fexe ba sunna jamula fexe ba sunna jamula fexe ba farata jamul fexe ba farata jamul fexe ba mbokk jamul fexe ba mbokk jamul fexe ba ñi nga àndal fexe ba ñi nga àndal xeebuñu la xeebuñu fexe ba fa nga woo xeebu ba fa nga woon tàmbalee ba fa nga mujjee ba fa nga mujjee mënuñu laa sikk mënuñu laa sikk loolooy njàmbaar loolooy njàmbaar sëñ Moussa nag sëñ Moussa diine rek diine rek nee na lu sama baay daan def. lu sama baay daan nam ko daan defee waaye noonee laa koy defee nag. bu koor jotaan bu koor jotaan. nit ñi xewal nit mu rëy soo ko lekk ceeb soo ko lekk ceeb bi. mu ni déedéet sama baay. da naan lu tàng ñu teg ñam ñu teg ñam julli julli ne ca. du ma ko soppi mukk lu baayam daan def lu baayam daan def rek fajar gi ma baayam daan jóg fajar gi baayam daan jóg bu jëlee yat bi bu jëlee yat bi di dox ceet bi di dox ceet bi di fëgg bunt yi di fëgg bunt yi jug leen julli jug leen julli jug leen julli jug leen julli jug leen julli ba ca jàkk laqad zarafat aynaaya qaddam an kawaabili li faqdi walilaay jammil manaaqibi sëriñ As Njëgeen مسرين عبد الرزاق نيغن باي مصطفى لقد زرفت عينا يدم عن كوابلي لفقد ولي لا يجم المناقب تعود ذكر الله في حال صبوة فجاز بك أهلا جميعا te amul ci mbartal bi oto bi di daw ba yegsi ci station bi taxawal boppam allahu akbar essence ba bañ ko waxee fan la jeexee ba ñu tàmbalee Koungheul lañ wax ko ne ko ah essence bi kat jeex na mënta dem sa foofu ñu naan Kaolack essence bi romb na Kaolack essence bi oto bi romb na Fass Barigo oto bi romb na Gossas oto bi romb na nebbe oto bi wëlbatiku na dugg na Gosaas dugg na kër Jurbel bi mu ñëwee ba si bi oto bi di dawal boppam ba si station bi daal di taxaw Pape Alaaji Moustapha daal di gestu na ma Moustapha mu ndaw ma ne ko labbay ko mi ne ma ana satala bi ma yëkkati satala bi jox ko mi ne gaañu ku ragalul yàlla perte nga déggu leen ma de mi ne gaañi ku ragalul yàlla perte nga jàpp leen seeni sëriñ nag lool la ma sa tofal mi ne ku am sëriñ jàpp ko du ëllëgee yàgg sa sëriñ yéenay ànd tàbbi àjjana yàlla nañ ci yàlla boole sëñ As Lamine wax na li muy wax ba pare lu may dool lu ñuy doxati dolleeti ci wax dañuy jox alaaji Xalifa Gay mu sànni si as tuut as tuut benn kàddu du ko defee alhamdulilahi rabil alamina ñu continuer programme bi man li rek la na won dina ko si wax ndax dama am cede lu ko waral bay Abdou sek me si bopom mo don dawal mo don wax ak sa bay waye ñoo ngi ñaan yalla ku ñew ci di ñaan itam mom mi am señ señ ci nangu liggéeyu yu jam yalla nu yalla nangul sunu jamu yalla yi mom mi amé barké nga xamni ni ba mu barkeelee yonent bi alayhi barke boobu moo topp yonent bi ba fii yal na yàlla wàcce barkeem ci jotaay bi ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuy bu baax suñu waajur yi nekk ci jotaay bi Baay Alxaaji Cheikh Oumar Ndiéguène jiite ko di suñu baay di suñu kilifa di suñu sëriñ di nit ku baax di kilifa gu mën a sagal ay kilifaam waaye mën a sagal ay njabootam te sagal njaboot rek moo waral sa toogaay bi kon Pape Cheikhou yal na yàlla dolli sa wér guddal sa fan yaa bàyyi Cheikh Ahmed Tijani Gueye ak way jur yi nga xam ni ñoo fi bokk nekk sunu mag yi tam ni ko Serigne Lamine waxee muy mag yu baax am seen lépp am seeni cër waaye ñëwaat ci bis bi ndax bis bi bésu sunu way jur la Serigne Mouhamadul Moustapha Ndiéguène yal na yàlla dolli leeram yàlla na yàlla dolli leeram te yàlla taas ñu ci barkeem تمباخو يلنت صلى الله عليه وسلم تبارك القرآن الكريم نوي شريف لغا خمني أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تماما ورا القد جي ماما مرك ورا ماما مرك ورا تماما من بوبم يلنت بموم من بوبم سنو مام يي غا خمني لنو أم تي يلنت بلنكو أمي نيو yàlla dimbali leen ba ñu mën seen kanam mën seen ginnaaw rawatina Seydina Muhammad kon Chérif ñu ngi koy ndokkeel di ko tatagal ñaan yàlla yàlla may ko wér te bàyyi ko fi ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Moustapha Alhaji Khalifa yéen itam seen i taxawaay rafet na ndax wéttali ngeen Serigne As wéttali ngeen Serigne As bu ñëpp ñëwoon te yéen ñii di ay kilifaam ñëwoo leen dana mel ni kenn nekk waye ni ngeen ande suñu wayjur yeb nonu ngeen ñëwee sagal ko ndax bëtt bi ngeen ko xolé moy bëtt suñu wayjur jur mustafa te bëtt bobu ku ko xolé rek di nga ko wormal di nga ko japp di nga ko fonk kon yeen itam sëriñ bi yalla na yàlla may leen wër yalla guddal seen fan doli leen jam doli leen sutura ci mbaxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke alquran suñu bàjjen yi aja Mam Maram Njëgën moom itam ngi fi teew fi teewal sunu bàjjen yëpp sunu jaam yi ñoom ñëpp ñu ngi fi sunu mag yu jigéen itam soxna Seynabu buñ ko tuddee dana mel ni dana yóbbaale sunu mag yim ko bokk séqal yëpp fa tabarakallahu a ah, sëriñ lamin jërëjëf ci waxtaan yi fa tabarakallahu ndax kër gi ni muy doxee daanaka yow boo jëlee kàddu wax ñun ñëpp yóbbaale ngeen xanaa baax rek ak joxante cër ak xorma rek moo waral kàddu yi ñu jël ko ne nañ ci barkeelu waaye ba bu ñu génnee ànd yàlla seede na bu waxee rek waxam day doy sëkk ci ñun ñëpp ñu mën koo jariñoo mën koo bége fa tabarakallahu kàddu yi rafet na kàddu yi yiw na kàddu yi baax na njëg cër bu ñu bokk dana ko bàyyi ak ñun cër bu mu am tam danañu ko jox ngir yàlla ak worma bu ko defee sëriñ bi liggéey yi nga naal yëpp yàlla na nga ko àggale ci mbaaxu yonent bi man li may wax yàlla mooy tax ma koy wax sama wéyjur sëriñ Moustapha damay wax ni taxawaay yii ñuy taxaw di ko wax ci kéemtaan te loolu suñu waajur yëpp laa ko boole de ay alaaji mën njëgeen moo naaw fi ak moo jaar fi ak moo yéeg fii loolu amul solo li am solo mooy dundin wi ndax dundin wi ñun moom lañu mën a roy naaw gi fanaani ci xadra yi loolu ñun mënuñu ko roy ndax ñun ay nitu ordinaire lañ waaye fexe ba waxtaane dundin dundinam loolu mooy li ñuy jariñ mooy jariñ mbokk taalibe yi leen yaakaar waaye suñu wayjur Serigne Moustapha dundinam neex naa waxtaane dund ànd ak wayjuram yi séq ak ay mbokkam jàmm ay kilifaam mu jox leen cër ay rakkam mu fonk leen dem jàkka dem jumaaja taxaw ci taalibe yi loolu mooy dundam loolu nag suñu maam noonu la dundee suñu baay yi noonu la dundee suñu maamaat yi noonu la dundee loolu neex naa waxtaane te neex naa roy ah, bu ko defee yàlla na ko yàlla gën a dolli sax tey jii bis bi alquraan yi zikkar yi waxante kàddu yu baax yi lépp yàlla na ko yàlla def yiw sëmbërtal ko ci bàmmeelam ba ba fa tabaarakallaahu mu séddoo ko mbokkam yu baax yam fa bokk nekkal yépp ci mbaaxu yonent bi sunu wayjur yi jigéen yi sunu bàjjen Adja Fat Diop mi fi des yàlla na ko yàlla gën a bàyyi ci kanamu njaboot gi moo ko sunu yaay Adja Adjumaloo ak Tandew suñu yaay Adja Khady Ndiaye mi jiitu yàlla na yàlla dolli leeram ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquranul karim di leen seedeel nitam soxna Maada Njegen mu suñu woyjur sëriñ Moustapha bi ñu demee itali dem këram bépp teraanga boo xam ni sëñ As bu ñëwoon dina ko teralee ba ñu fa demee terale nañu loolu togg na ay ñam ut na ay yére ut na xaalis woo na mbokk taalibe yi ñu daje ci këram woo na mbokk xaritam yi ñu ñëw fa ba ci waa kër maam sëriñ Touba yi ñëpp la invité na leen sama rakk daf fii ñëw waaye nag doomu mu niiru la bu fi mu niiru ñëwoon nu ma war a def rek moom mii duma ko xeeb danaa ko def sëñ soxna Maada taxawaay yooyu la taxaw teral nu ngir yàlla ak yonent bi ak xadara bi kon moom tabaarakallaahu danañ ko sédélat mbokk yi ñu xam ni taxaway yemu taxaw foofu taxawaayu kilifa la taxaway nit ku bax la ñu ngi jéggalu bu bax señas na nga dund rek te wér ba agalé nali yi ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa barke wayjur sa barke mam ju bax ja cheikhul islam cheikh alhaaji mouhammad واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته sëriñ as ñu ngi lay ziyaara di yëkkati kàddu ci ñetti mbir bi ci jiitu muy suñu way moo nu yabal ak suñu tànki bopp bi ñu ñëwee fii suñu nijaay daam ni nañu wax ci turu ñi nga xam ni ñoo jóge got ah, fii ma toog sax xam naa ni xaw na ma diis waaye li arab yi wax rek al iznu la yadur ah bis bi bisu xéewal la man sëriñ lamin daf ma daaneel jàngal ma leçon gis nga sëriñ bi kilifteef rekk am solo boo doxee woon sa yoonu bopp dinga yàgg ku ngeen lool nit yàlla bindu ko mu mel ni rab da ko bind wutal ko kilifa te nee nañ ko xeeb sa kilifa doo jariñu ci beneen kilifa man de miinuma sëriñ Moustapha waaye ku xool sëñ aas xam ni ki ko yar du ko ndaw kilifa ga day génn àddina njaboot gi toog di jooy ne ko boo demee kooñul bay kooñu kooñuy bàyyeel mu ne tilka aathaaruna tadullu alayna fanzuru baadana ila al aathaari ne su ma demee li ma jëf sama gannaaw mooy tegtale may kan kon su ma génnee àddina na ngeen xool li ma bàyyi gannaaw mooy lan kon sëriñ dafa am kilifa gu mag gu ñuy tag ba ñu àggalee mu ni leen lii day sama résultat yu waajur la da ngeen xaar ba samay doom ñëw waye suñu xel dal na ci yow ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax benn sahaba ashaj ibnul qais ne ko inna fika khaslatan yuhibbuhuma allah alxilm wal anab daf ko ni am nga ci yow ñaari jikko yo xamni yalla yàlla da leen lewet ak tey te defena ni wama shahidna illa bima alimna. ñun liñu gis lañu sédé mat nga kilifa sekk jamono bi nak yëngutu yi dafa bari dembu rek la ko doon wax ci benn waxtaan bu doon def ci fi seigne babakar mani len ku ci dof doflu ba sëriñ sundaw ndaw si ñi nga xamanteni ni amuñu benn ciosan yanu la musiba musiba dina la dal cosaan dafay aska dafay daf dafay yàgg mm. diine dafa yàgg ki nga xam ne bërki démb la dugg ci tariqa bi xëy rek ne ab muqaddam la wala xalifa la wala nangam nangam xale yi topp ko fa mu leen jëme mooy ci kàmbu rek ma ne leen e, yonent yi sax yàlla nee na ñoom ay seti setaat lañu. durriyatan baaduha min baad boo xoolee li ko dale ci aadama ba ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam benn famille bi la nit ñi nag jamono dañu bëgg yëngutu moo tax ku yëngutuwul rek duñu la naw waaye ki teey moom lañu war a gën a naw yonent bi de li mu jàngale mooy woyof te sama waajur am na lu ma nettali ci Serigne Moustapha ci yitte bi mu amoon ci njabootam ba fu njabootam am mu dem fa lu yitte boobu moom lañu gis ci yow mënoon nga toog fii rek yëgle gàmmu gi te ñëppay ñëw waaye kenn ku nekk ñi nga xamante ne ñoo nekkoon sa njabootu way jur nga fekk leen fa ñu nekk loolu taraanga gënu ko rëy te man dama ni dafa am lu ma yàlla dénk te bëgg naa bu ma koy rendre compte mu nekk mu nekk ma ma joxe ko ko nu mu gën a rafete wax sa wasaynal insaana bi walidayhi bu dul woon dara sax fonk gi nga fonk suñu way tax nañu teg la fépp waaye li ñu lay wax euh, sarak yi liñ fi wax ci ñoo ñoom it ci la ndax sëñ Abdou daf ma mos benn bis euh, fala ngay fan ngay xamee njaboot gu topp euh, kilifaam mooy bu demee ba mënal boppam waaye ku dem yaakaar naa bu ma juumul daaw jég la ma seeti imaam Hassan Cissé sama xarit la mu dalal ma ñuy waxtaan mu yëkkati ay teraanga jox ma man nag euh, këram boo fa duggee si salle bi dafa am photo bu mag a mag bu ñu def sëñ Babacar Si euh, ma dugg si salle bi toog jàkkaarloog sëñ Babacar en tout cas waa gi ndax man fu ma ko gis dama koy jox adiya sama ñet salatu fatih fu ma ko gis rek loolu la koy defal suma gisee photo rek dama koy jàngal faatiha ñet salatu faatiha ni ko mba ma mottali suñu kóllëre sama addiya ngi noonu bi ma ñëwee nag ma gis photo bi ma toog eh, jox adiya ba pare ne ko ah, góor gi nag dama lay am na ma lay wax yaa ngi nii damaa bëgg si sa barke balaa bis bee dellu si juróom-ñaari nag laa bëgg yi ma yeewu si gàmb gi tàmbalee ko ma ne ko saa yu ma saa yu ma xëyee bu ma rombee euh, terrain bi su ma gisee nag yi naan ah nag yi damaa waroon moom ko de xam nga booy wàcc xew loo gis lu baax lu jëm si xew bi rek da ngaan lii maa ko waroon moom waaye ma ma ma romb rek ma daal di ma daal di ma daal di koy wax loolu bi ma ñëwee ma fas ko sama xol bi ma ñëwee ba si kër gi juróomi fan laa si teg benn waaye ñëw jox ma xaalis bu bëri ne ma jox naa la ñetti nag ma toogaat keneen daal may jox ñaari nag ma toogaat kenn jox ma ñetti nag ñeenti fan la toog ma sama téléphone daal di woo Imaam Assane Cissé waaye gis nga sa sëriñ bi nu mu defati di sama wëllëre mu ne ah ma ne damaa ñëw def tawasulu ne ko maa ngi ñaan si sa balaa moo mat semaine naa am nag juróom-ñaari nag mu ne ko ñaari nag ñi ñëw na waaye xam nga ñoom dañuy wis ma ko teg na si xaalis bu bëri moo tax mag ñi dañoo baax te cër yi ñu am moom bu ñëwaan si euh, maam laa ji ma njigéen daa ñëw seet si ko ndax sëñ Babacar wël na rem na woon bi mu ñëwee seet si sëñ Babacar ñuy waxtaan booba ay jafe-jafe yu amoon si diggante moom la doon dox mu waxtaan moom si jafe-jafe yi sëñ Babacar euh, daal ne ko ah tontu ko wax xolam ko wax mu xam ni góor gi dugg na si xaal mu ne ko ñaanal ma ma dem man lu baax rek laa doon dox ak di ko wax ñaanal ma ma dem ba mu ko ñaanalee ba mu génn mu ne góor gi xaal bi xaal bi ma ko bàyyee ku ñëw ginnaaw sama ginnaaw dana mën na kaa yàq mu wàññee ku ñëw ne ko waaw sëriñ bi waaye yow yow daal sa sa baay ba mu dajeeg sama baay ñu ne nañ ñaanal gone yi dafa mel ni yow dangaa ngaa jël lépp si barke bi nang ma nang ma sédd sama wàll nag nanga ma seen sama wàll sëñ Babacar ne ko ah mu ne ko man damay toog ci sama saal rek dégg oto naan mbay yaa ñu doy mbay yaa ñu doy ku nekk di dem mu ne ko waaye yow bu ma waxul bul wax mu ne ñun coono ñu nekkee yow nekkee woo ko yow si sa pijaan nag nga toog luñ fi def def ko te jugoo fi nga toog kon bu ma waxul bul wax ah <laughs> loolu mooy mag ñi kon nag boo ñëwee fii sa kër la kenn dëppale wu la fi kenn dëppale fi waaw kon kontaan nañ bisimilah. ah waa fi may tëjee rek pour wax la am kilifa. dama fi febar nek Saint-Jean de Diegui amna fa wer ba ben bis ndaysan docteur yi ñew ne ndax am nga ko andal ñu am luñ ko wax man len man de lu ngeen di wax man ngeen mako ko wax ñu ne man no man len liko dalé dé jëm suuf ragalu ba ci dara ñu ñew dal nema la sunu yaakar ci yow dal wax deug yalla matul 10 ñu ni ba ma xoolee ñu ne ma suba lañ lay opéré mais daal foog nga signé ma daal signé benn ñaan rek laa ñaan ñaanu yonent bi bu fekkee des fi moo gën naa fi des bu dem gënee ma dem parce que fii yàgg-yàgg da ngay dem kilifa baax na de gis nga ci fajar gi ma xool muy le vingt cinq mars ma ne alhamdulilah ma dee bis bi sëñ Babacar génn àddina sama xol sedd na ñun ngi may puus ni maa ngi kontaan ñu ne ma yow de da ngaa def damaa defe bale wala Saint-Jean dañu mujj ne fee ma dëkk ci àll bi ay docteur lañ ma booleel ñu fay ñëw ñu ne ma yow dootoo ñëwati ci barke seexul xalifa rek mooy wax ne nit ñi ko nit yàlla yi koo ci jàpp mu jàllaleel waaye wallahi bu ma jàppoon ci sëñ Babacar si weddi beneen yu torox laay def àddina ak àllaaxes fi ma tëddee dama ni gam-gam nelaw rek ma gis ko musal tani bu ñuul kukku ni ma doo fi dee de loo war a àggale wax ma ko ñetti yoon bi ñu paree dañ ni ma ñoom dañoo jaaxle sama mag bu jigéen laa noo xam nga di ko wax yooyu mu nekk fay jooy moo tax ma ko dara man fi may yégee ma nekk ak cheikhul xalifa nekk ak xalifa lu mat une heure de temps bi ma yeewoo ci ci saal bi biñ ma jëlee woon laa yeewoo kilifa dañ koy fonk gis nga sëriñ bi xam naa boo ñëwatee daara ji di nga ko gis hmm. jumaa jooju dañoo def fondation bi ma bàyyi ko foofu rek laay tëjee ñu baal ma dama bëgg rek xale yi xam ne kilifa baax na ma bàyyi fondation bi ba benn bi sama doom bu jigéen bi ñëw ne ma papa damaa gis Seydi Hadji ak sëñ baabakan ñu ne dañuy àggale jumaa ji li gën a yéeme li raase jumaa ji jógewul ci jullit sama xarit bi nekk TFM moomoo ne ma dafa am benn tubaab boo xam ne dafa maa woo di jooy xam nga ñoom ñooy ñi nga xam ne mooy def wareef nee na dafa liggéey àddinaam yépp defar ci kër gu mag doom ji daal daa xëy rek ne koo yow comme retraité nga dañ lay yow fa ñuy denc màgget yi ndax sama far wi ngay xatal ah sama xel dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit dugg na àjjana ci xaj te walaqad karamna bani aadama ma ni ko naa ko ñaanal tawassul ci saalihiin yi mu ne ma lan laa lay jox ma ne ko dara léegi ñoom xam nga tubaab bi bëgguñu lool yàlla def mu mu ko defalee mu woo ma ne ma doom ji su ba léegi mu ngi jooy nee na ni mu la umilier lay lay lay regretter mu daal di jibi njaay booba yaa fa mu daal di ne ma léegi comme comme laajoo ma dara dinaa la dinaa la dinaa la yónnee dara kon nga jënd ci vingt ma ne ëpp naa def de mu yónnee ma sept mille sept mille euros moo raase jàkka ja ne te daf ni ma Seydi Hadji Malick laa gis ak sëñ Babacar ñun dañuy àggale si jàkka ji man de bëgguma dara lu dul diine bëgguma dara lu dul ñu baax ñi ku mer sa affaire la waaye ku baax ku ne bëgg naa ko te yàlla tax ñoo ngi jégalu sëñ Lamine ah loom naka waa kër gi naka njaboot gi alhamdulilah na ngeen def bàyyi leen yóbbu ci biir nañ àgg ci biir sëñ bi recevoir leen ci biir fekk ah dañuy xam ne nag bon ñoom ñoo toog nii barakallahu yàlla yàlla barkeel jërëjëf jéen laa ma kontaan nañu yow wóolu mu ngi def ay teraanga kon nag yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla dolli seen sutura gis nañ teraanga ji gis nañ nag bi gis nañ xéewal yi boobu tey noppaluwu leen sallallahu alayhi wa sallam ah ngeen tàllal sëriñ As defal leen ñaan ah ngeen xam ni sëriñ As kontaan na ndax sëriñ As li ko ñor mooy yokk liggéey sëriñ bi rek te jamono bu ne yéen a ngi ci wetam di ko jàppale yëkkati seen teraanga dajale seeni i ngir sagal ko ci bisu bayam bi waye sagal ko ci bisu sayduna muhammad kon nak lepp lu ngeen ci son yal yalla fay len ko ci barke sayyiduna muhammad alaaji jere jef kontan nañ ci taxaway bi nga am ak ni nga àndee ak gox bi te yamo rek fi waye dekk bi yep fofu xam lu bax ak man fi lu bax yang koy def and ak ñom di yëkkati teranga diko ko ci kër gi kon nak sëriñ baa ngi leen di sant ak njabotuk bopam gi and ak talibi and ak soppe xarit yep di ñaan yàlla yàlla na seen teraanga yàgg lu ngeen fi def ren yàlla neen yàlla may kàttan ak wërsëg bu ngeen def déwén lu ko ëpp ci barke Seydouna Muhammad kon ngeen tàllal loxo yi sëriñ bi ñaanal leen incha allahu taala maa ngi seen beneen délégation ñu ñëw ñoom itam andi di seeni teraanga jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seck jërëjëf tànt jërëjëf tante jërëjëf waa Somone na nga def na nga coono na nga ngeen ko ci ëtt bii yal na yàlla fay leen yiw ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu somon ku dégg somon rek xam digganteem ak sëñ Moustapha Ndiéguène fa tabarakallahu taxawaay bi nga xam ni moom la sobal am ci wetu sëriñ bi amul benn dëkk bu jiitu ci wetu sëriñ bi ci taxawaay ak ci jàppale ak ci sutura ak ci teraanga fa tabaarakallaahu ba jëmm yàlla yi tey kon nag taxawaay booba ngeen amoon am ko ci sëñ Moustapha Ndiéguène bi mu fi jógee sëriñ As nekk fi ngeen ànd ko ak moom rawatina sunu diggante gi yéen ak goroloo dox ci ngeen jël seen doom jox ñu fa tabaarakallaahu wëlbatikuwaat ànd ak seenu taalibe ak seen teraanga di ko def ci kër gi kon nag coono bu ngeen fi daj ñu ngi ñaan ci barke alhaaji ahmad njegen ci barke alhaaji ahmad baro ci barke sëriñ moustapha mi nga xam ni moo xewle tey ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla faj seen aajo teraanga ji bari na xéwal yi bari na fa tabaarakallaahu ah, kenn xamul nu mu toll te yàgg na lool lu xew yéen a ngi taxaw Andak mbolo andak seni bok Kung ku ngeen am indi ngeen ko lere gogo di dox ba jëm yalla tay tey te yàquwul ci sen loxo kon ñu ngi ñaan bot gi nga xamni moy njabot gi sëriñ bi am ci fofu ci njabot gi yakalaaw ana ngeen talal loxo yi rek ah bi ñaanal len ah, lepp lo xamat job ñom suñ tànn ak sunu yaay yëpp tan suñu ah, sunu yaay aja ayde ñom ñep ak ñom badjan Ndey Mbooj nga xam ni ñooy suñu yaayi bopp koy gërëm ñu ngi koy sant ndax fa tabaarakallaahu soxna Adja taalibe la ta ki sutura te ba mu koy def booba gàmm gi yombul te sunu dund bàyyi la woon lu ñuy defar ci ay carte toogal lu ñuy defar ci ay carte kon nag yal na yàlla gën a dëgëral taxawaay yi yal na yàlla gën a dolli sutura yi yàlla na yàlla gën a yokk xéewal yi ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo daan sosi ci maam Limaamu Laay di ko dimbali ci wàllu bu fatoo booba ndox jafe na xewlu jafe na ba bés mu xool ko ne ko Adja Aram yaa ngi sonn ci man rek di ma defal teraanga di ma wutal ay ndox lu baax lu ne nga defal ma ko waaye sama borom xamal na ma da ngaa nekk jigéen te li nga àndal jigéen la. waaye li nga àndal bu ganee àddina ba nekk mag dina taseeg nitu yàlla bu mag bu ñu naan Alaaji Mat Baro nitu yàlla boobu dina jur ngënku yàlla bu mag bu kenn dul àttan muy Alaaji Axmat Njigéen maam Aram Jaw moomu moo ñu boole ak maam Maymuna Ndooy ak maam Fatmata Ndaw foofa lañu bokkeek ñoom bàjjan maam arama nga ne toog maam aram njëgën moo la jax man njëgën suñu bàjjan amija njëgën moo la jax man njëgën ak suñu bàjjan ndey mbooj ak suñu yaay asu njaay suñu yaay ajaa ayda jéen ñoom ñëpp ñëw nañu suñu yaay ajaa mbana tabaarakallaahu ak joon njaay ñu ngi koy gërëm gërëm ñu ngi gërëm joon njaay loolu mooy diggante bi mu wax ko gàmmu gi su teroo rek mu wax ko ko mu xam ni fii ku fi ñëw rek yàlla nga fii wut soo mama laaj def daf daan wax ni lu waay di wut mën na ko fee bañ a wut waaye ku bëgg yàlla ju raxul dara bu fi ñëwee rek mën na koo am mu ngi koy nettali suñu benn mbokkum taalibe fukki at ak juróom-ñett mënul am doom mu ñëw ne ma ñaanal ma damaa bëgg doom ma ne ko jarul ñaan sonnal ci gàmmu gi ñàkk fu sa alal boo fi ñàkkee sa alal sonn fi am teraanga. nga koy teg mu teg ko ci sama loxo ba pare di ma soññi donc ñun waa kër gi lañu ci famille bi lañu bokk euh, parce que ku xam waa got

mu xam ñu xam ni rek sëriñ bi am na ay taalibe yoo xamante ni dañuy yëngatu ci wàllu àddina ci wàllu politique dafa am nag fu ñu féete fi ñu féete nag ñun dañuy def lu dul di def ay ñaan pour que ki nga xamante ni moom la ñu ci wàllu politique muy Amadou Ba dañu sàkku ay ñaan sëriñ bi ñaanal ñu bu ko defee élection yi ñu jëm aussi ñu am ko ñi mu gën a rafete te it nit ki euh, defe naa ni bu fekkee ne dafa jëm ci mbir li muy def mooy ñi nga xamante ni ci ñoom la yaakaar ñaan mu ñëw tàllal tàllal fa ay loxoom waaw sëriñ bi nag moom dafa bari ay taalibe te xam naa ni taalibe tendance bu ne la macha allah waaye nag ñun am nañu droit wax ni fii la ñu nekk ba pare di sàkku ay ñaan voilà mu ngi noonu te te daal nga xam ni daal say say taalibe ñoo fi nekk euh, mbir mi daal lépp loo jàpp ni war nañ ko cee mën a def dinañ ko ci def bu soobee yàlla alhamdulilah di sàkkuwaat ay di la ñaanal aussi yàlla nga yàgg ci suñu kanam sëñ bi maa ngi ànd aussi soxna Aram ak madame madame madame madame Diakhaté ñoom ñëpp ci mouvement bi la ñu la ñu ñëwee fi gunge ma pour seet si la ziar si la te it incha allahu rabbi dañoo bëgg lii sax bu baax a baax a baax merci beaucoup jërëjëf. ñooy ànd di yëkkateendoo di defarloo te moom mu nekk nit ku rafet xam-xam waaw générosité am ci wàllu xam-xam kenn xamul fu mu toll moom moo nekk nii waaw yooyu waaw moom moom moom waaw moom waaw moom noonu lay doxee waaye yow na aussi sa diggante kër gi. man mën naa koo résumer ci nu nekk ndax man xam naa la ci wàllu social xam la ci wàllu développement got googu dage nan fa dage nanu njuuxaan euh, keroog fag ma fekk ak la nga xam moom nga ak yeneen yu dul yooyu yoo xamante ni dage nan fa ngay jël sa alal di ko fa def ah xam nañ te aussi tamit ci sa wàllu responsabilité yooyu am nga ci ay responsabilité politique te képp kuy politique moom moom mooy rek ki nga xamante ni dafa ñëw taxaw pour mën a tabax dëkkam tabax réewam loolu nag boo ko waxee ku mel ni sëñ bi mu di ko dégg mm-hmm. te xam ne loolu rek nga ci jublu te loolu tam xeetu jaamu yàlla la mm-hmm. dañuy ñaan yàlla tam yàlla jàppale la ci mission boobu nga xamante ni moom nga bëgg lépp loo xamante ni yéen a ngi koy yéene ci réew mi mm-hmm. yéene ko ci dëkk bi yéene ko ci islaam bi yàlla na leen ci yàlla jàppale ah seen waajoo tam mi ngi subu ci yoon woo xamante ni day bëgg dara yàlla na ko yàlla jàppale defal ko ko defal ko mbépp jël bi jaay sadu ji sallallahu alayhi wa ñoo ngi lay gërëm di la sant ci turu fédération bi ci turu taalibe yi nga xamante ne ñoom ñoo fi faral ñoo fi daje ah di nga xam ni ni ma ni ma ko waxee léegi rek moom mooy ci nekk mooy yaa ngi fii mais sa xelee nga ci feneen waaye ku gis sa digganteeg Lamine mii ndax Lamine dégg nga sëñ bi ni mu résumé ni nga xam ne noonu la bokkee ci kër gi te la ko ca boole moom loolu mooy ci ci la boole gis nga booy àndal rek àndal ko am njariñ booy waxal waxal ku la mën a dégg booy dem demal ak ki nga xamante ne bu ngeen eggee fa ngeen jëm di ngeen mën a àgg te moom matale loolu ci wàllu judd gi ci wàllu mbokk gi ci wàllu daayira bi cant gi daal foo ko natt rek passé ne foofu sa digganteek sëñ bi sa collaboratrice yi nag man xame naa leen bu baax ndax ñoom it euh, jamono booy jóg rek ñoom ñi ngi ànd ak yow di bokk ak yow mbir mi ñoom it nanu yëg nii sëñ bi mi ngi leen di gërëm di leen sant yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay yàlla defal leen ndam ndam loo xamante ni day ànd ak ngeen fekke ko bañ cee onku bañ cee jaaxle bañ cee feebar bañ cee ñàkk xaalis allahumma salli ala sayyidina muhammadin ma jox ko si euh, àll. jërëjëf. dëgg yeesal sunu taalu tey nag yoon wi dafa am soppi bu ndax ñu ba ya nga xam ne ñoo daan jiite yoon wi ah yàlla dafa dogal ñu am beneen euh, lu mel nii loo xam ne lii dañ faa dem yëbal ñu pour ñu ñëw tey teew ñoom itam ñu ngi yóbbante seen siyaar di yeesal sunu taalu sant bu baax a baax baax yàlla bi ñu may ñu fekk ko waaw parce que nag fu ñu commencé mooy ah xale yi nga xam ne ñoo dëkk dànk ak looween ak njaboot te yàlla dogal bi ñu nekk ci dëkk bi seen taxawaay gis nañ ko ci gis nañ bu baax seen taxawaay ñi ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen wërsëg ba run mer man ren bu déwénee ñu man lu ko ci barke yonante bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ seen taxawaay bég nañ lool ndax fi nga xam ne tey ñoo fi waroon a taxaw te xëj na ñun mënuñu fi taxaw taxawal ngeen ñu fi yéen ñu ngi sant jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñu kenn di sant xale yi nga xam ne ñoom la bàyyiwuñu kenn di sant itam amna suñu sunu mbokk mu baax mo xamne ne daw ñu ngi fi mbokkoon nek ak mom ren yalla dogal suñu borom tabaraka wa taala jël ko muy sëriñ Massamba Lom taxaway bam daan taxaw ñi mu bayyi ginaaw taxaw nañ ko bam mot soxna ma ngi fi ay ay doomam ñu ngi fi ñu lay ñaan yalla nga defal ko ñaan fa mu tedd yalla ko gënal fi mu joge ci barke serigne ak bépp julit bu jitu ji man nak yalla dafa dogal xana waye ndigal rek waye wax ci mbolo mom li def bari wu waye xamal na ñi ngi bég bu baax jakarok sa kanam gu tedd gi ñaan yalla yalla na la yàlla yàggal ci suñu kanam yalla na la yalla may fan gudd yalla na la yalla may wér gi yaram yalla na yalla yok martaba ah fi nak say fi suñu xel dem ci suñu góor ga borom dalin koor ndax fi lañ daan togo mom di ñu ah waaye sant nañ yàlla ndax bi ñu bàyyee ak yow waaw ñun ñun bawol kóllëre rek la ñuy dox ak yow ndax ma alaaj ji def na ñoon yéen du ngeen ay taalibe njaboot ngeen ba sëriñ Moustapha ñëwee loole doxal ak ñun bu dana wax yéen du ngeen ay taalibe njaboot ngeen suñu xol day set di la ñaanal yàlla rek fan wi gën a gudd waaw yal yàlla guddal fan wi bu baax di ko ñaanal yo moom it yàlla may ko fan wu gudd ak wér-gi-yaram di siyaar di sant xale yi ñoom alaaji ñii nga xam ne saa yu ñu ànd ñoom ñoo ñuy bégal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw saa yu ànd ak ñoom ñu bégal ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ci sant sunu borom bu baax nag ndax bu leen yàlla nattoo woon tëggi musique it duñ leen mala dara kon nag bu leen yàlla xiiree ci tagg sayyiduna Muhammad fu ñu dem ñu sagal ñu fa dañ leen di sagoo di leen ñaanal yàlla may leen fan wu gudd yokk seen xam-xam may leen teraanga may leen njaboot dafa leen dëgg dagg dëgg dëgg taalibe Cheikh na Ahmada Tidiane ah, ah sëñ seen damaa mënewul wax kon foofu laay yem ah, li ci des nga ah, jëm koo àggale kontaan nañ bu baax a baax a baax waaw comme ni ko waxee sunu baay alxaaji Adama Sène moo fas yéene joxe ay kàddoom ne mi ngi leen di nuyu yéen kenn ku si nekk ci turam ak santam sant waa ne mi ngi sant waa daayira bi nee na nii ñu takkoo ren nee na mësul am ne ñi ngi sant it ñin fi fekk te alxaaji ma dikk di njiit la ne toppatoo nañu bu baax a baax ne lépp lu warit def na ko nee di sant ñi nga xam ne ña nga nekk sa bitim réew jàpp nañ ci bis bi muy itali ak Amérique ne ñoom ñëpp jàpp nañ ci di santit alxaaji papp Sène jàpp na ci ne ñoom ñëpp def nañ li leen war ne wax nag dañ koo mënewul si mbooloo ne sëriñ as mu du njëgeen ñi ngi lay sant ne luñ man ren bu déwénee yàlla nañu man lu ko ëpp mais xolam dafa fees ba mënatul wax loolu la ci amoon lu muy wax bàyyi jàpp mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sunu maam alxaaji Pape Sène moo fas yéene sànni ay kaddu ne mi ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak sa ragal gan ñëppit nag ne mi ngi ñaan képp ku fi ñëw say tànki dikk ak tànk ya ngay delloo yàlla na ko yàlla def yiw ni fi ñépp ñëwee ci jàmm yàlla na yàlla delloo leen ci jàmm mais guddi gi nga xam ne moom leen ma lépp luñ fa ñaan yàlla nañu ko yàlla nangul ne bu ñu teewee sa tànt ba ne nañu teewal aajo yépp ndax nee na gëm na ne bépp bu aajo bu fa waaye teewal dana faju ndax nee na suñu maam alxaaji ahmad baru njigéen moo ñu ko wax sëriñ Moustapha borom dëlin kóor dog si loolu sëriñ as muur mii nga xamante ni mooy xalifa papaam dogu na ci loolu nee na sëriñ as mii mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha Njigéen nee na képp koo xam ne jàkkaarloo ngoog sëriñ As mii ne bul jàpp ne sëriñ As ngay gis de waaye ne na nga jàpp ne sëriñ Moustapha Ndiéguène ngay gis ne ndax sëriñ As mii nee na sëriñ As Moodu Ndiéguène nekk na xalifa baayam ay at baayam di dund jël njaboot gi joxoñ leen nag sëriñ As Moodu Ndiéguène ne leen kat eh yéen njaboot gi ku bëgg lu ma neex toppal ci sëriñ As Moodu Njëgeen ne mooy sama lépp nee na kër gi ñëpp it xamoon nañu ko lu muy wax sëriñ aas la koy wax lu muy def it sëriñ As Moodu Njëgeen mii lay jiital mais am na sax ñu daan wax ne xanaa yow sëriñ As Moodu Njëgeen rek nga jur. mu ne déedéet waaye nag a moo nekk nag sama taaw nee na taxit sëriñ aas bàyyi faalu baayam la woon mësul am dara si dund baayam dawal na ko safa ak marwa nee na baayam sëriñ Moustapha Ndiéguène dey gërëm na ko ci digg kër gi ne njaboot gi it seede nañu loolu ne ñuy sant yàlla it nag njaboot gi yëpp déggal nañ ko nee na moom it njaboot gi lépp lu ñu am lu ñu man ñi ngi koy def nee na ñoom lu ñu am moom bàyyee na ko ak ñoom li mu am mi ngi leen koy jox ne kon sëriñ Asmuru Njëgëb ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko fan wu gudd yàlla yàggal taxawaayam ne njaboot gi yëpp sant nañ leen gërëm nañ leen ne ndax moom mii suñ maam papa seen mii toog di wax day Daba dana doy waar lool ne bërki démb rek dañoo dem ci benn dëkk fekk fa génn góor mu ne ko sëriñ As day yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla na ko yàlla may gudd fan wax leen amin mu ne sëriñ As mii jàmbaar la sëriñ As borom fit la sëriñ As ku baax la. ku yëg nit la mu ne sëriñ as mii day lu mu defalul nit daf koo amul tey taxawaay bi mu taxaw ba bërëb ba baayam ba mel ne taxawu jumaa ba di ko étage pas pas la moo waral lee de kon ne yàlla na ko yàlla lafal cet lii mu nekk yàlla na ko ci yàlla gunge nee na bërëb bee de ba mu fay tuxu di fa dem du caagi rek da ko mënoon di ko def waaye volonté la ko defe nee moom mii ba mu ko ko waxee mu ne ko sëriñ mu ne ko ah mu ne ko képp ku lay découragé balaa daayira bee ñëw moom mooy commencé di soññe di jàmbaar lool di moo waral nag jataay bi xaw a yàgg waaye ne insha allahu rabbi balaa sëriñ bee daaneel loolu ñu doon lijjanti dina mat jox ko sëriñ bi ne avant ñuy daane nag sëriñ Habib Kanji moo agsi noonu borom ànd ak sëriñ Abdou Salam Njëgën nee ñu dalal leen su ko defee nag sëriñ bi jox kàddu gi mu ne dafa am jigéen ñu war a dem sa waañoo sëriñ bi waaw jigéen euh, yàgg fi loolu te wér yàgg fi loolu te wér lomb sëriñ bi kanji waay kanji kanji kanji kanji kanji kanji ziar naa la kanji kanji kanji nga ci jàmm tabarakallah kanji bu ngi suuf Moussa na ngeen def bàcc yéen a ci jàmm kanji kanji kanji na ngeen ay famille mu ngi conseillé mu ngi yiir mu ngi jàppale nit ci turu yàlla mu ngi teg nit ci àdduna fu mu baaxee mu ngi wax dëgg ku kenn ñi mawuta wax dëgg yii moo doon ay melokaanam kon nag kilifa gu mel noonu bu la ko yàlla dénkee yàlla jële ko fi te bi mu fiy jóge mu bàyyi ay ndaw mu mënoon a ñaaw lool waaye dara ñaawu ci ndax liggey bi mu liggeyal yalla la ko samal samal moo tax sëriñ As jërëjëf ci taxaway bi yalla na yàlla fay la tey képp koo xam ni nga ak serigne Moustapha wala ngay njabotam am nga fierté ci taxaw bi serigne As taxaw yokku nga courage xam nga ni itam ni lepp lu nit di def moy lu bax su fi joge yalla jël loxom tek ca ba ko xone dina ko doxal suñu baye pap sen limu wax lepp deg nañ ko. ndax tey amul lenn lu sëriñ As di def te ñun ñii di ay rakkam duñu ci ay témoin oculaire ay teraangam ay teereem ay suufam ay xéewalam yépp da koy jël di ko def ci liggéeyu sëriñ bi ngir mu jag kon gàcce ngalaama yàlla yàlla yàggal sa taxawaay lii nag bu mënee am sa wayjur yu baax yi ko séq ak yow ñoo ko waral ndax ñoola dolel jappale la bo adina yep dajé ñu waré ni ki kat sunu njaboot la waye doynu nunu sëkk ci yalla kon sunu kilifa yoyu tay yal na fayal ñu leen ndax fa tabarakallah suñu baye ahmad njëgën ngi tok di dom ci sunu mam cheikh oumar njëgën doonoon wolere señ mustapha njëgën te terangam du gëj ci kër gi waw yagna ma ne loolu yàgg na at mu jot moo fi jiitu ci teraanga yeew yëkk bu mag ne maa ko yeewal sama njaboot kon njëgeen yàlla na sa teraanga yokk waxuma dara rek waaye conseil yi mu ñuy jox ak orientation yi mu ñuy jox ak cofeel gi mu nu ëmbal njaboot gi kenn ku ci nekk xam na ni sunu baay Ahmad Njëgeen nit ku baax la yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay nit nag léeg-léeg di nga am njaboot waaye njaboot dana toll foo xamante ni yow boo doonee kilifa yi di nga xam ni sa njaboot gi ay kilifa lañu waaye bu yàlla defaree sa xol xam ni njaboot lu mu mën a mel sa dëgg la dëgg la gannaaw bi mu jógee ci sëriñ bu mag bi di maam xaaji Mouhamed Ndieguène mu ne ko lettre bii jox ko sa baay alxaaji Moustapha Ndieguène mu lay taxaw ndax sa maam mag la nee na ko lettre jox ko sa bàyyi Lamine Cissé. loo fa jëlee ci alquran. loo fa jëlee ci alquran. sa maam ñaanal la. ñaanal la. am ci barke. nga am ci barke. kon man digganteeg Serigne Moustapha. nee na kon digganteem ak bàyyi Serigne Moustapha Njigéen. sama wajur moomu booleeg moom. nee na wajuram Mawlaana Cheikh Kandji moo ko booleeg moom. mu nekkoon di nit ku baax. nee na Baalaaji Moustapha nekkoon nit ku baax. qualité yi wax ci moom. nee na qualité yi Serigne Mouhamadou Lamine wax ci moom. xam na am na yu mu bàyyi sax. nee xam na am na yu mu bàyyi. waaye loo. boo wéeteeg moom. waaye nee na boo wéetoog bàyyi sëriñ Moussa Wa daal. lu gàtt gàtt. lu gàtt gàtt. mu wax la loo xam ne. mu wax la loo xam ne. dana la jëriñ. dana la jëriñ. yàlla sunu borom tabaraka wa taala yal nanu yàlla boole jéggal amin si nee na sunu jotaay bi nee am nan ci yaakaar nee na lambatuwunu nee na danoo daj nee na ñun lambatuwunu danoo daj nee na kunu woon nga ne jàkk gis kooku dootoo dootoo nekk di day day nee na kooku dootoo nekk di day naagal. ñun dañoo daj. sang bi nee na. danoo daj. gis gis. te kenn wanuñu. te kenn wanuñu. sang bu tedd ba sëñ Moustapha moo ñu won. ñun gëmuñu kenn. nee na gëmuñu kenn. yaakaaruñu kenn. nee na yaakaaruñu kenn. ku dul sëñ Moustapha. ku dul sang bu tedd bi sëñ Moustapha Ndiéguène. ndax lu ñu am. nee na lu ñu am. moom la gannaaw yàlla ak yonent bi Moustapha moo tax ñu am. lu ñu mën nee na lu ñu man moom nee na moom la. lu ñu xam lu xam. moom la. defuñu fi lu suñu morom deful. nee na defuñu fi lenn lu sunu moroom yi deful. amuñu fi lu suñu morom yi amul. nee na amuñu lu fi sunu moroom yi amul. waaye ku ñemee dañ kaa déy. nee na waaye ku ñemee nag dañ leen di ñoo dee déy la. man dama wax ne bis bii. bi nee day wax ne bés bi ku nee na ku ñime. na si jàpp nee na na nga ci bés bi. boo si jàppee. nee na boo ci jàppee. sa kaw la ñu aw de. nee na incha allahu rabbi ca kaw nga jëm. kon nag nañ góorgóorlu jàpp. sang bi nee na. nanu góorgóorlu jàpp. doon ay taalibe. nee na doon ay taalibe. fedeli laxasaay yi. fedeli nag laxasaay yi. man xawma moom day xamul tricher. xaw ma jàppantu. nee na xamul it jàppantu. jàpp laa xam nee na jàpp jaxran la xam. kon nag nañ góorgóorlu sang bi nee na nanu góorgóorlu. le 19 novembre. nee na le 19 novembre. ba fin wu décembre. ba jeexatalu décembre. 52 dëkk def naa nee na juróom fukki dëkk ak ñaar def na ko. fu nekk ma dem. fu nekk nag dem na fa. lu tax ma fay dem. nee na li tax mu fay dem. bi sama baay génnee na bu sang bi tedd bi génnee àdduna. yéen waa Loomeen yéen a. yéen waa Loomeen yéen ko woo. ak yéen waa Dax. ak yéen waa Dax. ak waa Njogop. ak waa Njogop. ak waa waa waa waa Kër Mbay Sini. waa Kër Mbay Sini. ak yëpp nag waa cax ne ma bu ñu dikkee nee na dëkk yëpp ngeen ne ñu ne bu ñu dikkee dafay metti nee na dafay metti jëlal benn oto jëlal benn oto nga ñëw nga ñëw ñu feddali suñu laxasaay ñu feddali suñu laxasaay ci yow topp la topp la nu ñu toppee woon sa baay keroog maa yor kurus yi ëpp na téeméeri kurus waaye alhamdulilah nee na sang bi nee na alhamdulilahi rabbil alamin lii rek la bëggoon nee na sang bu tedd bi sëñ Moustapha yàlla dolli leeram lii rek la bëggoon xale yi dañ may wax ne sang bi nee na xale yi dañ ko naan waaw bi sang bi gàmmu gi tiit taasi de gàmmu gii de ñun dañ cee xaw a tiit leen dox leen fële mu ne leen topp leen fële yéen gëmoo leen sëñ Moustapha yéen gëmu leen sëñ Moustapha man lépp lu ma dogu nee na mu ne mu ni leen man lépp lu ma dogu ci barke sëñ Moustapha ci barke sëriñ Moustapha dafay am nee na day am nee na billaahi moom moo ko ko waxal ba ko nee na fii la ko fekk ci ndég bi nee na mu ni ko mu ni moom mi mos am million lekk ko wala mu am cinq cent mille wala mu am cinq cent mille lekk ko wala mu xëy wala mu xëy te du joxeel sang bu tedd bi dépense ci këram gii di fay ñaari kër yëpp di fay ñaari kër yëpp seen i courant muy dem ay trois cent cinquante mille muy dem ay trois cent cinquante mille nee na te nee na gorul yettuma yettul lu dul yaakaar sama kurus lu dul yaakaar kurusam te saa yu ma xëyee ne te saa yu xëyee lu ma war a def nee na lu mu war a def def ko dina ko def ba def lu ma mën ba def lu mu manul woon nit day am kilifa sang bi nee nit day am kilifa nit day am kilifa ki nit day am kilifa boo amee kilifa nee na boo amee kilifa lépp loo laal lépp loo laal yàlla dina ci def barke damaa ñëw nee na sang bi ne dafa ñëw ñaanal benn waay ñaanal benn waay mu jox ma ñetti million mu jox ko ñetti million ma ñëw ci sëriñ bi nee na mu ñëw ci kanamu sang bi ne ko sëriñ bi ni ko sëriñ bi addiye bii laa la indil addiye bii laa la indil mu xool nee na mu xool mooy yow xaalis bi bëri na lii mu ne ko ah waaw sëñ bi yow de xaalis bi ma jox daa bëri lii fu mu jógee mu ne ko lii fu mu jógee mu ne ko diw laa doon ñaanal yàlla mu ne ko da diw laa doon ñaanal yàlla moo ma ko jox moo ma ko jox ma ne ko mu ne ma ah mu ne ko ah jëlal nga yóbbu jëlal nga yóbbu ma ne ko waxul ba mu yàgg mu jàpp gémmiñam mu jàpp gémmiñam ni ko ah alaaji man daal man daal xaw ma sa fit bi foo ko jëlee xaw ma sa fit bi foo ko jëlee ma ne ko man damaa am kilifa gu mat kilifa mu ne ko man damaa am kilifa gu mat kilifa kon lan lay ragal kon lan lay ragal ma ne ko mu ne ah kan mooy sa kilifa mu ne ko ah yow alaaji kan mooy sa kilifa ma ne ko dara mooy yow ma ne ko mu ne ko yow mooyu la mu ne tekk ba mu yàgg. nee na mu ne tekk ba mu yàgg. ne alhamdulilah rabbil ne alhamdulilahi rabbil alamin. moo tax ñun mënuñoo fay sëñ Moussa Ba. nee na ñun mënuñoo fay sëñ Moussa Ba. ku mu xam. nee na ku mu xam. ak lu mu am ci xam-xam ak lu mu am ci xam-xam. boole nañoo ak moom. boole nañoo ak ñoom. mu jox ñu ko mu jox ñu ko. yaru rek a fi am. nee na yaru rek moo fi am. yaru rek yaru rek. waaye dimbali nañu de. waaye nag dimbali nañu. nit boo boo amee jamaa. nee na nit boo amee jamaa. waaye boo tiitee ci yow la. nee na nag boo tiitee ci yow la. am benn waay. am na benn waay. sa France. nee na lañ daan fay. nee ba mu dégg. dégg jamono mu dégg jamono. ñu koy fay lu ëpp lool. ñu koy fay nag lu ëpp lool. mu xëy mu xëy. tasante commissaire u tase commissaire u bi nga xam moo yor lépp luy luy commissariat si xam ne moo yor commissariat lépp ci biir France. mu wax ak moom. nee na mu wax moom. ni ko yéen. ni ko yéen. ay wànq ngeen. ay wanq ngeen. ci deretu nit ñu ñuul ñi. ci deretu nit ñu ñuul ñi. ngeen di dundal. yéen ay lâche ngeen. yéen ay lâche ngeen. xas ko xas ko nag. wax ko lu ne. wax ko lu ne. ni ko bu ñu soxlaa ci yéen. ni ko bu ñu soxlaa ci yéen. ngeen jafeel ñu ko. ngeen jafeel ñu ko. te bu boo leen soxlaa ci ñun. te bu ngeen soxlaa ci ñun. mu am léegi lépp am. xas leen. nee na di leen xas. daal daal koy wan gannaaw dem. daal koy wan gannaaw dem. am ku ko dab am ku ko dab ca mbedd ma ca mbedd ma ni ko yow ni ko yow xam nga ki nga doon waxal est-ce que xam nga ki nga doon waxal mu ne ko lu sama yoon mu ne ko loolu lu sama yoon mu ne ko déet dama lay wax rek xam nga ki nga doon que xam nga ki nga doon waxal mu ne ko kan la mu ne ko kooku kan la mu kii kii lépp luy sécurité lépp luy sécurité ci France ci France moo ko yilif moom moo ko yilif mu ne damaa tiit ba saw mu ne ko man dama tiit ba saw nee na mu daal di mu daal di jaaxle. nee na mu nag amuk njaaxle. ne xaaral ba daw. ne xaaral nag ba daw. dem ñibbi. dem ñibbi. naa ñàkk li ma amoon. ndax. dinaa ñàkk li ma amoon dinaa ñàkk nag li ma amoon. dinañ ma génne France dinañ ma génne France. dinañ yàq samay kayit dinañ yàq samay kayit. mu daal di ñëw. nee na mu ñëw. daal di daal di naka la ñëw këram rek. naka la ñëw këram rek. ndekete ministre de l' intérieur yëg na ko. nee na ndekete ministère de l' intérieur bu Sénégal. yëg na ko bu France bu France yëg na lool. mu jaaxle. ma nee na mu jaaxle nag. Nena Dadi feebar si saasi nee na ci saasi ñu yóbbu hôpital ñu hôpital mu def fa ñetti fan mu def fa ñetti fan naka la genn naka la genn ñew kërëm di ubbi di ubbi ñu indi kayit ñu signal ni ko signal mu signal mu te xamul sax la mu signal lu mu doon mu joge France nee mu joge France ñew senegal ñew senegal wo sama ben way ko bi ni ko bi def man la ma def dafa rëy sama sama tej xajna ci sama tej xajna ci ma genn France dinañ ma génne France dinañ yàq samay kayit kenn rek laa yaakaaroon ginnaaw yàlla kenn rek laa ci yaakaaroon ndax alaaji ma njëgeen ma boole ndax maam alaaji ahmad njëgeen moo ma boole woon ak moom muy sëñ Moustapha muy sëñ Moustapha njëgeen sëñ Moustapha dem na sëñ Moustapha dem na moo tax ma jaaxle ma ne naa ne ne ko nag man looloo tax ma jaaxle fi ma toll mu ne ko ñàkkoo de mu ne ko nag ñàkkuloo mu ne ko dooma a nga fa mu ne ko dooma ma nga fa mu ne ko dem fa mu ne ko dem fa mu ne ko est-ce na mu ne ko est-ce que foor na mu ne ko gën a nekk guerrier mu ne ko kookoo gën a nekk na guerrier ka baayam mu jóge France direct nee na mu jóge France direct ñëw ñëw booba laay soog a tuxu si sama kër nee na booba lay soog a tuxu kër ga fee ca xabru ba mu ngi boo gisee mu ngi mu ngi euh, sol chemise nee na keroog waa yaa ngi sol chemise takk bretelle takk ay bretelle daal di takk euh, chapeau yooyu nee na sol chapeau chapeau kabo yooyu chapeau kabo yooyu la sol daal di wàcc daal di wàcc ma ne sama soxna bu kenn génn mu ne soxnaam bu kenn génn bu kenn dugg ma entré ko si salle bi mu entré ko ci salle bi ci digg kër néeg ñu waxtaan nee na ñu bokk waxtaan day waxtaan ba mu yàgg nee na day waxtaan ba mu yàgg jooy daal di jooy mu ne waxal sa soxla mu ne waxal sa soxla te bu ma fen te bu ma wax lu dul dëgg waxal lu dëgg rek waxal li dëgg rek mu daal di wax nee na wax ko li xew yëpp naka lay àggal naka lay yàggal mu ne ko billahi mu ne ko billahi euh, commissaire ba commissaire ba laa wax ak ñi la wër ak ñi la wër suñ dara suñ la mënee dara billahi ma dagg sama kurus buñ la mënalee dara man ma dagg sama kurus buñ la laalee luñ la laalee ma teg sa saaga bu ñaaw ma teg sa nag saaga bu doy war waa ji xaqataay nee daal di ree xaqataay ba mu yàgg mu jooy nee na ba yàgg nag mu daal di jooy mu xaxataayaat mu xoxataayaat daal di bërëngu daal di bërëngu xalangu daal di jooy daal di jooyaat daal di yug fecc daal di jóg ne waay kontaan ne waay ah sang bi kontaan naa demal Manuko demal utal loo ma jox utal loo ma jox jox ma nangam jox ma nangam te nga dem sa yoon fàtte te nga dem te yoon te fàtte loolu mu tombee gàmmu sëñ Moustapha nee na mu tombee nag a gàmmu sang bu tedd bi sëñ Moustapha ñëwul si gàmmu gi comme nii ñëwul ca gàmmu ga nag ñu gàmm sa ëllëg gàmm nag ba ca ëllëg sa mu jógee France mu jógee France ñëw nuyu ma ñëw nuyu ko foon ma foon ko sama yaay ngënd ni ko yaay ngënd yaay punkar jërëjëf <laughs> ne ma sama lépp faju na mu ne ko sama lépp faju na kayit yaa ngi nii kayit yaa nii lépp leer na euh, ministère de l'intérieur nee na maa ni ministère de l'intérieur nee na ma yaa nekk ci dëgg waaye loolu du dara na waaye loolu du dara de am kilifa la am kilifa rek la wóolu sa kilifa nee na ku wóolu sa kilifa jërëjëf doon taalibe na nanu doon ay taalibe nan feddali laxasaay yi man bugguma taalibe bu yàmbar bi nee na buggul sa yaafuus buggul taalibe bu yàmbar nee na taalibe boo xam ne day wax de xalaat déedéet bëgguma loolu. nee bëggul loolu. man sama bët lu mu gis. sang bi nee na bëtam lu mu gis. xol bi jàpp na ni mën na ko. xol bi jàpp na ni mën na ko. du def lu mën mukk. du def lu mu mën. rek. tey dina ko def. nee na dina ko def. mu ngi sang yi mu ngi ñaan na dolli ñu ngi nuyu suñu baay. ñu ngi nuyu suñu baay. Euh, euh, suñu mag. magam. Euh, sëñ Habib Kandji sëñ Habib Kandji wax na dëgg bu bu jur bi njaareem nee na wax nga dëgg suñu mag la nee na magam nga suñu xarit la xaritam nga doomam sa doomam mooy sa xaritu benn bakkenam mooy xaritu benn bakkenam lu nekk la waxtaane lu nekk la ñuy waxtaane gërëm na ko sant na ko tànk yi mu dikkee na lool rëy na lool du maam Cerno rek rek nee waaye ñun ñëpp nga koy defal nee na ko gisee da ko naan sëriñu njaareem yàlla yàlla barkeel. yàlla yàlla barkeel. Baye Ahmed. Baye Ahmed Ndiéguène jërëjëf. sang bi neena jërëjëf sagal nga ñu sagal nga ko sutural nga ñu sutural nga ko yal na la sutural amin ñoom ma yoroo ngi nii nee ma ñoom ma yoroo ngi nii ànd ak délégation bu mag ànd ak délégation bu mag a may sa jeng ak su ñu ngi sang bi ñu ngi di wóllëre sëñ Sidi di xaritam di seen xaritam nag moom gàmmu gii nee na gàmmu gii tardé mukk nee na tardé PDS lañ PDS lañu kon ñu ngi leen bu baax sang nee na ñu ngi leen di gërëm bu baax yan yàlla dool sutura bi nee na ñu yan yàlla dool sutura bi nee na yàlla na yàlla dooli sutura bi leen rek lay laaj nee na leen rek lay laaj dafa am lu ma bëgg nee na dafa am lu mu bëgg dama ne woon dama ne woon daf ne woon gàmmu gi bu mu ñëwee gàmmu gi bu ñëwee dina commencé ci daayira yi dina commencé ci daayira yi ba guddi ba guddi ma commencé di ko continuer di ko laaj mu continuer nag di ko laaj mooy jumaay sëñ Moussa Badji jumaay bi nga xamne bi sang bi tàdd bi moko tracé won serigne Moustapha Ndiéguène beug beug beug jumaay serigne sëñ Moustapha ji neena jumaay serigne yu Moustapha ji mom lay wax sang bi neena jumaay ji lay wax nañ ci taxaw sang bi neena nan taxaw ci jumaay yekati nako yekati nako yëkkati na rasé na ba mu dalé ko sa yekati wat na ci kaw bi ñu gàmmoo ba pare nee na bu nu gàmmoo ba paré laaka laaka yekati mu rasé neena lan koy yekati mu rasé lu mu bon bon dem na juróom ñetti fukki millions yu nenak nee na lu mu bon bon fee mu nekk def na ju teg na juróom ñetti fukki millions. te kenn defaru ko. kenn defaru ñun ak seen seen weccitu taalibe yi. nee na nag jëmmam ak weccitu taalibe yi. ndax borom alal goo gis. nee borom alal joo gis. ak ministre ya fa ñëw. ak ministre ya fa ñëw. ku wax. nee fu wax. ku ku wax si. nee ku ñëw wax si. ne dina dina ma jox. ni dina ko jox. du ko gisaat du ko gisaat. kon nag. nee na kon nag. balaa may def li ma bëgg a def. nee balaa def li muy bëgg a def. taal sox bi nag. nee na sox bi tàkk nag. dañuy taal sox bi. nee na sox bi dañ koy taal tey jii. ku nekk na joxe. sang bi nee na nag ku nekk joxe. bëgguma lu ndaw nag. nee na bëggu lu ndaw. na ñëpp joxe. na ñëpp joxe. yow leen ñaar téeméer jëm kaw rek na ñëpp joxe. nee na ñaar téeméer jëm kaw bëggul weccit de. nee na kenn ku nekk taxaw benn côté. nee nga laaj. joxe leen na ñëw nee na joxe leen nee na ku bëgg a defaru na nga andi fere ci nee na ku bëgg a defaru na nga joxe na nga joxe ku joxe defaru nee na ku joxe di nga defaru ku defaru ku joxe yokku la ku joxe yokku ñu ñu ñu sox bal bi bal bi nee na ñu sox waaye salaam jërëjëf jël leen jël leen joxe leen joxe leen rek na am ñu féete ne rek di laaj na am ñu rek na lépp ñëw rek lépp ñëw waaye ndànk-ndànk rek jumaa ja dafa war a ca kaw a kaw jërëjëf waaw incha allah yal na ko yàlla ya rabbal alamin jërëjëf laaj rek na ñëw rek ñëw leen ñëw leen eh, jàmm jàmm na def am na may jàmm jàmm lii day bokkul ak addiye yi lii jumaa jëla lii jumaa jëla bokkul ak addiye yi joxe leen ñaar téeméer lu ko ëpp joxe leen lu ko ëpp dafa bari kay tele yi la alaaji bàyyi ma kontaan nañ kontaan nañ jërëjëf togal togal noonu togal togal ki ñu présenté photo bi waaw na ñëpp toog sëñ Lamine sëñ Lamine sëñ Lamine ah sëñ lom lom lom jërëjëf yal na yàlla barkeel jërëjëf yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel waaw papa ah aja jërëjëf yal na yàlla barkeel ne ko sant nañ ñëpp rek. bi mu ne sant nañ ñëpp. dafa am bis yoo xamante ne. ne dafa am bis yoo xam ne nii. boo ci demee. boo ci demee. bul yàkkamti. bul yàkkamti. ndax bisu defaru la. ne ndax bisu defaru la. bis bii. nee bis bii. boo gisee niñ ciy mel. boo gisee niñ ciy mel. ni suñu yaram yi di tàngee. ni seen yaram yi di tàngee. ngeen xam ni. ngeen xam ni. bis la boo xamante ne. bis la boo xam ni. incha allah. incha allah. ku si ñëw. ku si ñëw. yàlla faj sa yàlla faj sa li muy dénk njaboot gi ak taalibe yi ñoo ngi dëgmal élection ñoo ngi dëgmal élection o oh. nanu ko bàyyi xel ak Serigne Bàcculoom ne ku deful dara doo am dara ku bëgg dara dangay ngay nangu ne bëgg dara da ngay jaral ne kon ñun talibé yi serigne Baye Massamba Lom mii lu mu am ci ñom ak ci serigne mustafa moko may bopam de talibé day fexé ràññeeku ci kër sëriñam sëriñam jaral ko lepp mu gëm sëriñam ba du ci am sago yalla yalla doli dolli sutura bi yalla bu yalla tas yakar mais gërem nañ jabot yépp allah allah doom jàng mu ne photo bi nag ñu koy jébbal kii nga xam ne mooy taawam bu góor muy xaaji morloom ne yàlla yàlla guddal sa allahu akbar mu ne ngeen tàllal loxo yi ne kenn ku nekk def ñetti lixlaas yàlla yeesal yërmande mu ne ngeen ñaan ndax sëriñ bi mënatul wax sax ndax rungooñam dal na ci dënnam kon mbokk yi aajo yi faju na sunu baay ma sàmba yàlla na ko yàlla yërëm sunu baay ma sàmba yàlla na xippee aljanna yàlla alxaaji ahmad baro njigéen a wallu ko ëllëg ñun ñëpp ñu tàbbi aljanna Sering Muhammadul Lamine jaga ne na njaboot gi ñëpp tàllal sëriñ As Ñaan jërëjëf yal na le nangu ñaan yëpp kon sunu mbokk waa Loomeen ni mën nañoo delu ci seen dal ak waa dànq yi ak waa njogob waa ngaay si ak daayira yi taxawoon mën nañoo ñëw si waaye dañoo bëgg kàddu yi nak Ahmad njëgeen nee na mu ngi sant yàlla bu baax nee na mu ngi ci tànk yi mu fi ñëwee moom dañuy wax ni ñetti tànk la fi ñëwee benn bi parti bi la benn bi boppam la benn bi kóllëre la xam nañ loolu miin nañ ko ci moom waaye li ñuy wax mooy dafa am lu ñu bëgg a dëggal ci lenn li maa ko wax lenn li Serigne Moustapha moo ko wax gàmmu gi am na 67 ans ren le 9 mars 1957 lañ ko njëkk a gàmmu mu ngi def ay fan am na 67 ans lu yàgg lu yàgg dañuy wax dëgg la dañuy wax ne dëgg la ba mu des ba mu des fen fen waaye lu yàgg dëgg la beneen bi beneen bi mbaax gi wax ci sëriñ Moustapha mbaax gi nu wax ci sëñ Moustapha Ndiéguène moom doy ci seede moom sëriñ As ci seede ndax mooy Moustapha ndax moom mooy sëñ Moustapha Ndiéguène ndax mooy taawam mbaax nag mbaax nag boo ko waxee boo ko waxee ci ku baax ci nit ku baax ku gàtt xel ni man ku gàtt xel ni man day wax ni day wax ni ah, jaadu na ah, jaadu na ah, baayam la baayam la waaye damay dëggal li wax waaye damay dëggal li mu wax ndax baayam la ndax baayam laa yàlla dogal na yàlla dogal na sunu wu góor sunu wayjur wu góor di bàyyi Serigne Moustapha di bàyyi ci Serigne Moustapha Ndiéguène dafa nekkoon xaritam dafa nekkoon xaritam muy waxtaan ak moom. daan waxtaan ak moom. daan jëflanteeg moom daan jëflanteeg moom. sunu wayjur wu jigéen. sunu wayjur wu jigéen. keroog ba sunu baay génnee àddina. keroog ba sunu baay génnee àddina. daa jël kurusam. daa jël kurusam. jox ko sëriñ jox ko sëriñ Moustapha Ndiéguène. ne ko yeesal ne ko yeesalal ma. soxna si ne ko ah Moustapha. soxna si ne ko ah Moustapha. lii diis na de. lii diis na de. mu ne ko euh, sunuy mu ne ko sunuy nopp. maala maa la teg sama gannaaw. maa la teg sama gannaaw. ba sa këllu ferantal. ba sa këllu ferantal. waaye do ma. waaye yeesalal ma doy nga ma. ndax El Hadj Axman ndax El Hadj Axman Njegen. xam naa mooy kan. xam naa mooy kan. kon. kon. As Modou wala Mamadou Lamine ne Serigne Moustapha baax na. bu As Modou ne Serigne Moustapha nit ku baax la. day jaadu. day jaadu. sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha. dëggal ko dëggal ko. su ma ko dëggalee su ma ko dëggalee. mooy sëriñ Moustapha mooy sëriñ Moustapha dëggal na ko. ku baax la woon ku bëggoon mbokk la ku bëggoon mbokk woon. ku ko dox la ku ko dox yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla yokk leeram. sunu kilifa sunu kilifa nag. di alaaji Muniiru yàlla dogal na yàlla dogal ah, na. sëñ Ahmad Cissé Ndiéguène mu xalifa bi mooy agsi noonu. Seedes Mbag Seedes Mbay. Seedes Mbay. Dagga Dagga. ci suba ñëwoon na. fi la yendu dafa day dem ñëwaat. mu ne ci suba fi la yendu daf ne woon day dem ñëwaat. bi muy ñëw bi muy ñëw. daa tombé daa tombé. may wax may wax. ci Serigne Muniru ci Serigne Muniru. mu yegg si mu yegg si. kon wax ji dëggu na kon wax ji dëggu na. kon kon. ñu ñaan yàlla ñu yal nañu yàlla may ñu fekk. yal nañu yàlla rek. mu wàcc boo ci laalul boo ci laalul mu wàcc ñun nag dañuy fexe ñun lii rek la kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant toogaay yi dafa yàgg te métti am nañ ci yu bari yu ñu mën a leeral waaye nag loolu alhamdulilah wa barakaatu jërëjëf seni bay yakar al des mohammed nga mu jël len mom ñi mu jamono and ak ñom samp bis bi moy guddik sayyiduna mohammed té nak yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam leppam leppam leppam mom moom yonent bi yamuta kenn ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana yont yàlla Muhammad c'est le modèle par excellence lépp lu waay di seet wala lu waay di gis wala du lu waay di war di roy kenn la la yàlla royloo mooy yont yàlla Muhammad bim ñu royloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag waaye yonent bi yàlla defal na ko loo xam ni tax na ñu man koo roy roy gi mooy lan mooy yonent bi fexe na ba jikko yi nga xam ni moom la yàlla di gërëmee nit wala nit di ko gërëmee nit jikko ju mu mën a doon rek xool naa ba xool waaye jikko ju mu doon rek am nga ci jikko joo xam ni moo kawe yow yonent yàlla muhammad min kulli wasfin hamidin haza afala tafdil yonent yàlla muhammad su fekkee yow da nga naan diw dafa baax boo ñëwee ci yonent bi da nga naan moo gën a afala tafdil la superlatif la ñi jàng français looy gis ni waa diw dey dafa yaru boo ñëwee ci yonent bi moo gën a yaru bu dee da nga naan diw dafa yiw boo ñëwee ci yonent bi moo gën a yiw sallallahu alayhi boo nee diw kat dafa tabe mën a joxe boo ñëwee ci yonent yàlla muhammad moo gën a tabe ñëpp waaye la góor ga waxoon maam Cheikh Alhaaji Malick doy na sëkk wa laysa li amalun alqaaka ya amali siwa almahabati wa taazimi wa rafami ñu ne ko waa Alhaaji Malick ñoo ngi lay laaj soo lëggee lan nga yaakaar sa diggante ak yàlla xanaa Maodo jaamu yàlla yi nga doon jaamu nga yaakaar mu ne déedéet Alhaaji Malick xanaa li nga julli ci yonent bi nga yaakaar mu ne déedéet xanaa li nga bind ci yonent bi nga yaakaar mu ne déedéet xanaa woor yi ak naafila yi ak xeetu ibaadaat yi nga daan def mu ne déedéet ñu ne ko waaw lan nga yaakaar mu ne xanaa sama cofeel ci sayduna muhammad bi mu tollee ci samp kër ñépp ne diwkat mu ngi toll ci samp kër ca la ko fa bàyyi wuti yàlla départ départ Saalum bàyyi lépp jëm si Tëngéej ñu ne ko lu mu fay wuti mu ne ko xam-xam lay wuti lu mu fay wuti lu mu gën a yéwénalee diineem lu mu fay wuti mooy lu mu gën a góorgóorloo ba cofeelam ci yonent bi gën a màgg mu def ko di ko def di ko def di ko def ba tarbiyu la muy tarbiyu ca Tëngéej yépp jóge fa wëlbatiku ñëw jànqeen gii samp zawiya samp jàkka samp daara taxawal diine ji di woote ci yàlla waaw mbokk yi bu doy xel mu rafet rek loolu jëmmi yàlla boobu ba tey ndax loolu jot na tey ay nit taxaw di ko suufeel wala di ko ñàkkal fayda ñaata mag ñoo tax nit ñi far ijji ñaata mag ñoo tax nit ñi xam yàlla ñaata mag ñoo tax nit ñi seen cofeel ci yonent bi gën a yokk moo tax mbokk yi sunu rendez-vous yii nga xam ni mag ñi ñooñu ko tànnal mooy suñuy rendez-vous ci beesal suñuy pas-pas ak suñuy cofeel ci diggante nun ak sayduna muhammad nañu góorgóorlu sallallahu alayhi wa sallam ji waaye ne xaway yaratu nabiyaa ngi ku la yeeyee na jàmbaar yonent Yàlla Muhammad lépp luy leer mbaatel dox mbaatel luy raam ci dara ji sama waa jëre am na kenn du yonent Yàlla Muhammad ji waaye neexawal Muhammad rasulillahi ya rasulillahi ji waaye neexawal kenn du yonent Yàlla Muhammad Lamin maa ngi déglu wallaay ndeysaan man bi may jóg kaan bi ma yor tuuti ceebu daal xam nga lu tax ngir yonent bi maa ngi ñaan ko fi nekk tey sama rajo bi rek nga làmb ci kaw yàq tere ko di jëmbi say dinaaw loolu moom nañ ma ko defal ngir jëmbi yàlla ku làmb ci kaw yàq teral ko ngir jëmbi say Muhammad ba ñu daje ci yàlla bu naa ci ci yonent lépp nag laa wax ku ko man rek neel jokket teral ko ngir jëm yonent yow maa lay teral ci yonent bi jërëjëf yow maa lay teral ci yonent bi yal na yàlla faj aajo yi jërëjëf yal na yàlla faj aajo yi fa tabaarakallaahu taxawaay yii nga xam ni la mag ñi daan taxaw démb ak bërki démb muy taxawaay yoo xam benn bu ci nekk lenn rek ko tax mooy jullit bi war naa góorgóorlu ci digganteem ak boromam yal na nu yàlla def ay dëgg-dëgg taalibe taalibe nag dafa am lu ko war bu ñëwee ci kër sëriñam war naa fexe yóbbaale bind te bind boobu nag fa tabarakallahu ustaaz al imam alxaaji alin kan di sunu doomi bàyyi di boroom xam-xam moom laa bëgg fa tabaarakallaahu mu ñëw am lum ñu jox ci yóbbal ci guddik sayduna muhammad nees tuuti sëriñ bi génn bu sëriñ bi génnee insha allahu taala lépp loo xamante ni war na koo waxlante ak taalibe yi mu dénkante ko gi yéen délégation Somone bii fi ñëw monsieur le maire Bokar ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara di la wàcc sa wàccuwaay yaag ñoom xaaji maar ak gaa yëpp ndax yéen gàmm gi yéenay dalal gan ñi gàmm gi seen gàmmu la wax naa ko sànq ne diggante somon ak li ko wër ñépp xam nañ ni ñoom ñoo moom gàmmuk sëñ Moustapha Njigéen waxuma sax sëñ Moustapha waaye njigéeneen ci boppam lu ñu am ci diine rek yéen ko moom kon nag yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay yàlla na yàlla dolli sutura bi damay bëgg léeg-léeg muy doon jataayu diine fa tabaarakallaahu lu fi am rek nañu xam ni jataayu diine lay doon ñu ngi ñaan yàlla képp ku fi teew yàlla na yàlla faj sa aajo ku ci nekk ñu ngi leen di ziyaara ah, dañu ko doon nuyoo ni noonu rek ba sëriñ bi mën a yegg si bismillah <laughs> barakallah